waaw tey dañoo ñëw euh, fii ci diggante Sinthiou Mbadane Pël Sinthiou Mbadane Séeréer Mbuleem ak gaña ak Sidi Bougou nekk ay village yoo xam ne yi nag dañoo dend ci benn euh, dëkk bu tudd Mburoox te ñu amoon fi benn cas communautaire ah Mburoox bokk ci commune Sandiara waaye sunu dëkk yi nekk ay dëkk yu sës ci Mburoox man leen a considéré comme ay comme ligne de front maanaam dëkk yoo xam ne daal dañoo sës ci fu ñu tudd feebar bi ñuy tuddee coronavirus ñu ne nag nañu ñëw euh, jox ay masque dëkk yooyu yëpp ñu defar lu toll ci 4000 masques ñeenti junni masques yoo xam ne dañ ko bëgg a séddale population yi pour que véritablement képp ku ciy génn ci sa kër nga mën ko sol soit ngay dem ci penc ma wala ngay dem dëkk ak dëkk mbuur wala feneen wala ngay dem boutique ba ñëpp daal war a mën aar seen bopp ndax lu ñu doon dégg Chine doon ko dégg France di ko dégg itali di ko dégg dakaar di ko dégg Mbuur ba ñu koy dégg ci suñu kër yi ah jot na nag ñu xam mbir mi jege nañu té la ko yóbbu mburoox yobbu ko mbuur man nako indi ci sun biir dëkk yi motax tay ñu jëloon une journée spéciale daal di défar lu du toll ni 4000 masques sur un total de 20000 masques parce que commune Malicounda dina commandé 20000 masques ñaar fukki jooni masques yo xamne ne yi ñeenti junni yi moo doog comme dëkk yi ñoo gëna sesti fi tuddu mbir mi ñu ne fii moo gën urgent ñeenti junni ñu ñoo pour jox leen ko donc dina amaat yenen fukki jooni ak juroom ben yo xamne yi tailleur yu Malicounda yi te ay artisan wu Malicounda ñaari association yi association des tailleurs de Malicounda Nord ak association des tailleurs de Malicounda Sud ñoom lañ ko jox pour que ñu liggéey ko donc mu doon loo xam ne daal am nañ yaakaar ne dinañu dimbale bu baax a baax a baax pour que population bi mën a aaru ci mbas mi sensibilisation bi def ci am solo parce que masque d'abord boo ko joxee nit il faut nga wax ko nan la koy sole waaye masque rek doyul ndax loo mën a gàttal sa tànk moo gën donc waxtaan na ñoom ñoom tamit ci dund bi nga xam ne état bi indi na ko niñ ko war a séddale ak effort yi nga xam ne commune bi def na ko war koo dolli ci la état bi joxe muy 80 tonnes de de riz ak 8 tonnes sucre yoo xam ne yi commune bi jënd na ko dafa bëgg bu état bi joxee ba pare kër yi nga xam ne aide état bi jota faa àgg ñu mën ko fa àggale pour que véritablement population yi mën a toog dundee loolu ba génn bi daal duñ ko mën a gën a wàññee ñu gën ko wàññi donc sensibilisation bi ci loolu rek la ñu toog seen i kër di raxasu saasu ne waaye tamit di sol masque yi bu fekkee ne dañuy génn seen kër waaw commune bi war jot nañu quatre mille trois cent quatre vingt seize kit waaw muy ñeenti junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci ay dund yoo xam ne dugg na ci commune bi waaye commune bi xam nga ne àgg na ci juróom-ñaari junni ménage donc ça veut dire que moitié bi sax moitié bi effectivement dinañ ko couvrir mais dina des ba tey trois mille et quelques ménage yoo xam ne yi affaire ba na tàgg ci ñoom ménage yooy na am xëy na am na ñu ci mënal seen bopp mais ñu ci ëpp mënaluñ seen bopp moo tax commune bi fàggandiku 80 tonnes ci ceeb ak 8 tonnes ci sucre pour que ñooñu nga xam ne dimbalu état bi couvrir leen ñu mën mun a supplé état bi jàppale ci état bi parce que mbir mi encore une fois du xeexu état bi rek du xeexu commune bi rek mais xeexu population bi ñëpp la population bi commune bi ak état bi bu ñu joxantee loxo yaakaar naa ne lépp lu ñu bëgg ci résultat mën nañ ko am. waaw dund état bi nag am na lu jot ak si mbuur mais yaakaar naa ne dafa matagul moo tax séddale bi tàmbaleegul mais xam naa dootul yàgg incha allah ñu ñu tàmbali séddale bi. waaw euh, loolu nak particularité malikunda la Malikunda dafa installer ay comité villageois yo xamné ne yi euh, d' accord ñooy saytu yan ménage ñoo gëna a ci ndimbal li ginnaaw bourse familiale yi surtout le travail remarquable bi nga xamné mom le comité malikunda yi def moy comité bu nek collecté na au sein des villages xamna naa bu tollo ca tolloo évaluation bi nga xamné amna travail bu am solo bo xamné bi comité yi def nañ ko loolu encore une fois duñu ñu jàngal ne solidarité buñ ko xaar rek ak ndimbal bu ñu toogati di xaar tubaab yi defal ñu ko wala ONG yi mais ci suñ biir dëkk yi am na ñu ñu tane seen morom am na nu ñuy organiser solidarité au sein de nos villages mën na jur lu bari tey jii maa ngi am ay écho ne am na dëkk yoo xam ni yi dajale nañ seen biir dëkk lu toll ci fukki tonu ceeb suukar ak leneen yenn dëkk yi am nañ juróom-benni tonne donc loolu xam nga lu am solo la loolu bu ñëwee fekk si 80 tonnes yi état bi commune bi jënd ak dotation état daanaka kenn dootul desati ci dëkk yi te doo doo am ci dund bi

Euh, di la wax ne mbégte rek lañ ci mën a yëg mbégte rek lañ ci mën a yëg ndaxte ñun dañoo jege mborox comme ni mu ko waxee yàlla dogal kaa bi feeñ mborox bu kaa bi feeñee mborox boobu ba léegi la mu mën moo ngi koy def pour protéger ñu euh, d' abord njëkk na téye waa mborox jox leen dund bu doy pour ñu toog bañ a dugg bañ a jaxasoo ak ñun euh, yebal na fa service diitam ñu désinfecté leen pour lépp affaire yu bañ a laaw ba ci ñun tey mu indi ñu ay masque aussi pour ñu protéger wu ba bu ñu jaxasoo it bañ a feebar bañ a ñun mënuñ mënuñ def lu dul gërëm ko sant ko bu baax ndax bu mu yëgee affaire ba léegi moo ngi ciy béy waaram moo ngi def le tout pour mu bañ a jege mboroox dugg ci ñun comme ñun ñoo nekk frontière ak mboroox tey mu indi ñu ay masque pour protéger ñu mënuñu dudul sant ko gërëm ko masque yi moom euh, xëj na ni mu ko waxee la demee xëj na moyen moom moo xawoon manqué mais yàgg na nekk ci xel yi te comité bi yàgg na cee sensibiliser di ci wax kon bu demee ba yàlla dimbali ñu moom mu indil ñu ay masque indil ñu ndimbal parce que mom dañ ciy jog légui ni tas ko ci biir dëkk bi ku ci wara jot nga jot ci ñu fexé wax wax ak nit ñi ñu respecté ko ndax mo ñuy art ci feebar bi te jéggi nañu déssa ba lam ngeen di ñaax askan wi. ñu sol masque rek di raxasu tok benn place euh niko déggé ku ne xam na né bo doxatul lu am farata mën nga tok sa kër monga gën mën nga sol masque bo dugg sé nga raxasu bala nga dugg ci sa bo boo am hydroalcoolique aussi nga am sabu sa kër sa yo gëné ba ñëw rek nga raxasu ba set sa masque yi nga koy sol duka fonk. te ñu bañ a dëkkit ci benn masque ñu koy sol ay ay fan yu bëree bëri nga xam ne lu ci tàq dafay dellusiwaat ci yow loolu yëpp ñoo ngi ciy dèjà di sensibilisé nit ñi ci biir dëkk bi dañuy jóg léegi tas masque yi ci biir dëkk bi ne leen ñu sol ko obligation la pour ñu sol ko tey moom on est obligé ñu sol masque parce que boo ne woon amu amatuñu lay quoi lu ñu amoon lay mooy euh, war nañ sol masque mais amuñu masque tey indi nañu lim boo xam ne xaw na ëpp sax population bi fi nekk donc kenn lay boo mën a def sol masque rek moo war